waaye di dem ci hôpitaux yi di ñaanal ñi nga xamante ni yàlla sunu borom ah, da leen a teg natt yàlla na leen yàlla yëkkati waaye nag di dem ci armeel yi di ñaanal ñi nga xamante ni yàlla daleen leen a jël ci coobareem yàlla yërëm leen te jéggal leen te xaar leen ajana tey nag ma seet si sama maman sama xarit waaw koo xam ne vraiment damay wax ni yaay la ci man des fois ma xaw a jaaxle ni ko waa maman ah jamono tar na de nan laay def mën ma defal lii waxal lii te lépp lu ma mës a wax rek incha allah su ma ko doxee yàlla na ma ci may ndam. Euh, doon kenn ci ñun nag mu di maman bu so wax dëgg yàlla ba nga ñëwee ci aar ba tey yàqoo fekkee nga démb fekkee nga tey waaye rafetal nga ba moom fenn sens interdit tey moom lañ dalal fii ci People 221 maman dañ lay bàyyi nga nuyoo ngi lay suivre. waa naa nag <laughs> di kontaan bu baax nag. ci mbokk mbokki internet yi People bi nga xam ne nag. sama yëf la. waaw yéen yéen sama doom yi nga xam ne dañ ma bëgg ba. balaa ñu kontaan rek ñëw ci maman Sow bu ma ñëwee dañuy béeg bu ñu paree laata ñu commencé dañuy toog waxtaan directeur di suma xarit ah ñu mm-hmm. ko yàlla baaxal am jom di xale am jom am mm-hmm. incarne na boppam site bi yàlla doon télé ñaanal na leen ko bu baax te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal d' accord maman ma ñëw nag ci li waral coow li euh, ah bon kaay wax lu baax maman lan moo la inspiré ba nga woy loolu am ah, muy muy muy muy muy muy muy muy produit bi ah am na coow am na coow. ah waaw kaay wax lu baax daa am coow lan moo la inspiré bala ñëw ñëw ci nécessaire yi ci biir. waaw mooy euh, mooy fi la réew mi toll wax lu baax muy bëgg muy bëgg a doole wax lu baax amatul waaw ma ne fu ko teg wax lu baax kenn waxatul lu baax ay yàq rek moo am yàq rek yàq diggante yi yàq foyer yi yàq relation yi yàq kër yi yàq lépp ñu ko bëgg yàq rek. te war a wax lu baax. waaw kaay kaay wax lu baax kay wax si lu baax. kaay wax lu baax lépp baax. waaw loolu waral coow li. donc bi nga koy bind da toog xalaat ni jamono tollu na fii. Mm. Euh, naa bind lii. waa parce que dafa yàgg euh, man du may bind man dama ñëw si constat man du ma bind. Hmm. su ma déggee studio déedéet man man mënu ma bind mënu ma répété dama eh dama naan defal leen ma ko nii nan ko waxee nii bu ma casque bi rek man lu ma neex laay wax mais kaay wax lu baax dama ko yàgg a bëgg dama yàgg bëgg kasaaf kaay mama kaay mama. ci kay maman laa ko jëlee. Mhm. kasaaf may toog di inspiré wu di inspiré wu rek benn jour ma nekk di ci toilette di sangu rek ma miime loolu kay wax lu baax mu tombé ma ne lii la kay wax lu baax léegi amul njariñ ma ne xaaral boole ci nag argument yooyu ma mu war muy actualité tembe tembe tembe mhm. actuellement fi réew mi toll woy wi amul lu ko lu ko fépp mhm. kii dafa ñëw ci à waaw togg ba yàgg na waaye bi mu ñoree xomm na ñëpp bëgg ko ñëpp apprécier ko parce que dëgg de caam man sax daf ma condamné man sax yedd dama woy wi bu Bousso yow mi wax lu baax kaay wax lu baax waaw defe naa wax bu am solo la wax leen ne dëgg mooy njëkk bu la kenn jaral nga bañ a wax lu lu baax parce que yàlla séddale la teraanga yëpp te kaas yaa wute ku yeewu guux foofu maa ngi wax ki am ak ki amul message boobu ki am ak ki amul bu mu ñàkk ban ko ban koy wax loolu loo xam ne du lu baax. Mhm. ma ne pourtant yàlla sa sagal na ku ne te kaas wutee ku yeewu guux. Mhm. nañuy wax lu baax di def lu baax ci mim réew. Mhm. ndax dëgg mooy njëkk te dëgg mooy mujj. mais inspiration bi man li ma jaaxal dama ne maman xanaa moom da doon génn des fois di dem ci marché yi wala maman da doon romb ay xale di xuloo ba boo ko essayé sax nit ñi la yow mën ngay gaaruwaale. waaw waaw waaw waaw waaw <laughs> dina bari dina yëngal. mu mhm. ngi yëngal dan may won ni. parce que foogu na fa. dan ma foog ci rum tëmbi tëm kenn xamul ak ma ñëw indi lii indi lii indi lii kaay wax lu baax ji mhm. kaay wax lu baax léegi amul mhm. njariñ fu ko teg. saay saay ji ci réew mi fu muy amee njariñ nañuy wax lu baax tey def lu baax dëgg mooy njëkk te mooy mujj wax dëgg jëf dëgg ko gën yooyu. ak sunu solidité bi ñu ko waxee tagg ay maam indi ngéwél kamay way tagg ko maam may sàmm tudd ko kër maamam tudd kër baayam way ko waaw loolu dafa doo xam ne dafa dafa raar ci talent la talent la bokk macha hmm. allah. soo ñan nga ci àndal. Euh, euh, Papis Ndiaye benn Papis Ndiaye moom moo yore numéro moom moo yore musique Wally Papis. Hmm. bu coon ballaa ko bu ram waa Papis. Hmm. ñoom ñoo ko tëgg noonu mais da ko da ko réussir. bàyyiwul dara ci kasaaf. bàyyiwul dara mais dañ ko moderniser nag. defar ko ba mu baax. am na baal am na bu la neexee fëx. waaw am na lépp fëx naa ki sax def naa ci benn science boo xam ne wane naa ne lii den koy fecc am na bàkk pour wane ko rek na am na bàkk. Mhm. waaw. Mhm. dañuy wax lu baax te def lu baax ci mim réew. Mhm. wax dëgg jëf dëgg ko gën. waaw loolu moo fi ne. kese. d'accord waaw tey tey tey tey ci son bi. Euh, ku ko seetaan sax day jàpp ni lii démb la. Euh, ça veut dire que da nga ci jàngal xale yi que nii Euh, war nañu am inspiration di xalaat loo xam ne ñëwagul. bañ di topp euh, euh, ambiance beeg. déedéet li di way. xam nga tey xale bu ñuy way da defee ay waxi amour ak waxi mbëggeel ak waxi amour yi mais am na ay réalité yoo xam ne l'amour c'est vrai waaye am na ay réalité loo xam ne comme lii réalité la li ñu wax ni dëgg la. Mhm. lii lii lii ñëpp ci ñëpp mais man mosuma génne dara. Mhm. nit ñi daan nañ ko daan nañ ma daan nañ ma félicité daan nañ ma encouragé mais lii kilifa yi génn woo la nga xam ne lii way woo xam ne way wu yedda la mhm. le message est fort mhm. message est fort mhm. way woo xam ne dëgg la man mi ko wax ne naa dëgg la parce que man dama ci tënku man tamit na man mii wax kaay wax lu baax naay wax lu baax man tamit ci man laa njëkkee man waaw kaay wax lu baax mais moom du moo fi jeex dunu wax lu baax sa xarit bi nga am boo deful nank di nga ko ñàkk parce que ka nekk ko moom du ko wax lu baax day dem nettali ko lu mu la bàyyee te il est ko mu laajte da lay bàyyi ci erreur. Oh. ngeen sëggoo ñi fi am alal ñi fi am teraanga ñi fi am lépp am nañ koo xam ne ñoo xam ne ñoo nekk ci seen gannaaw di leen yàqal seen i nit rek mm-hmm. te duñu xam lan la. Mm-hmm. dañuy jékki-jékki rek yow bàyyi la mën na la boole sa patron sax te xoolal ni nga koy yéene xoolal ni ngeen sonne ñu ngi diw diw diw te fekk pour bu rek am place pour ñu mën leen a taral pour diviser pour régner rek moo fi ne. bon nañuy wax lu baax. nañ ñu wax lu baax. maman ñu décortiquer woy bi ah. Hmm. Euh, saay-saay bi ci réew mi. Hmm. nu muy amee soo waxee lu baax ñu mere la. ku fi wax ñu mere la sëñ Cheikh ko njëkk ko wax booy booy booy da ngay ragal sax da ragal sax wax saay-saay ci réew mi ku wax ñu mere la waaw saay-saay ci réew mi ku wax ñu mere la kay ku fi wax ñu mere la. waaw wax ba parce que saay-saay ci réew mi saay-saay mooy mooy mooy bëgg yenni mooy def loolu say say wax lu ñaaw. commentaire yu bon yi. commentaire yu bon yi say say ci réew mi ku fi wax ñu mere la. Mhm. tey am na sax ñoo xam ne da ngay wax loo xam ne tubaarkàlla méngóo la sax looyaa say say ci réew mi ku ci wax ñoom kenn waxatul boobu maa ngi kenn waxatul kenn sañatul wax parce que li ma wax ni kenn sañu ko. am na ñuy mer am na ñuy parce que may sañatuñ ko nag dem nañ ba xool xam ba xam ne léegi nag vraiment kaay wax lu baax amatul nag. kaay wax lu baax waaw fan fu ko teg xam ah, na dama tontu fu ko teg. waaw. Mhm. woy wi dafa woy am am am am woy am réponse waaw fu ñu ko teg. doo mhm. dégg fu ñu ko teg waaw ko teg. ci réew mi sëñ Bamba ne waaw fu ñu ko teg ci réew mi El Hadj Malick ne waaw fu ñu ko teg ci réew mi Cheikh na Cheikh Saad bu ne fu ñu ko teg ci limaamu commando yi mi ci yoof fan lañ ko teg Cheikh al Islam waaw fu ñu ko ba canaba canaba kon nag nanu dellu ci yàlla te xam ne yàllaay buur te moom rek moo fi ne. waa gis nga woy wi lépp nga ci biir. ñu bëri dañu jàpp ne maman Sora bi mu génnee son bi dafa dafa tontul kilifa yi maam kilifa yi nga xam ne dañoo tëju mënuñoo wax. tontul na ku ne wax boo xam ne dem le message est fort dañ koy bàyyi sa suspect li li ku ci décortiquer a gis sa bopp mi ngi ci kilifa yi wax naa la ko mi ngi ci kër yi mi ngi ci kenn waxatul lu baax kilifa yi bu nu noppee dootul baax. kilifa yi bu nu noppee fu ñu jëm lu baax waaye ragal nanu ñoom ragal nanu wax lu baax. ndax nga jàpp ne fu mu nii kilifa yi ragal nañoo wax. waaw parce que kenn wax saay-saay ji ci réew mi boo waxee ñu mere la. Mm-hmm. lu muy amee njariñ da ngay ñëwaat ci li mu laaj rek. Mm-hmm. da ngay bëgg a wax di kilifa waaye doo doo doon kilifa doon li nga doon nag di wax nag ay xale di la xas ak di la saaga te ngay kilifa doo ko def nag ah ñëpp ragal nag kenn waxatu saay-saay ji ci réew mi. boo waxee ñu mere la kenn waxatul. daa ñëw fu mu war a ñëw mais si le message est fort fii la fii la. wayu actualité boo xam ne dama ne amul lu ko gën a laa wax actuellement. Mhm. parce que dëgg la amul fenn fooy jaar déglu nga ko vous êtes journaliste déggu ko déggaat ko koo xam ne ne dëgg la. Mhm. sa jàppoon ne retour yi nga ci am ci kilifa yi dañ cee gis seen bopp bu baax moo moo wala retour yooyu noonu waaw mais ma ma ñëpp sax woo ma ay mbàkke jum ay xam nga ay nganda daal woo nañ ma Viviane gi bëgg da koy teg du ko que le message est ci ñoom ñëpp dañ ci gis seen bopp yàgg na ne am na ko def extatu léegi ñu ne moom ngay gaar waale ci gis boppam waxul lu baax boo xool lu baax du ko gaara day wax ne rek soo du bu soo ko way le hmm. message est fort. vraiment est-ce ci tolluwaayu réew mi nag nga ne xaaral ma xaaral ma génnee ko fii. non non lii dafa ñëw. walaay togg naa bu yàgg day soog a yàgg dafa ñoom dafa lii fii réew mi teloog yooyu dafa ma fekk si dafa fekk si actualité bi nga xam ne kon war nañ wax lu baax. Hmm. ndax mi ngi bëgg a ci réew hmm. bi mu ñëwee dafa gën a bon. lii fi xew. dafa gën a ñàkk bañ a baax. waa message bi mais nag fii la kay wax lu baax mais kenn waxatul. waaw kenn waxatu. vraiment bi nga génnee woy bi ragaloo ci dara bi nga ko génnee. non man ragal dama wax ak kenn dama lancé sama message nag réew mi amatul dëgg man ne ci ci dëkk bi di di di di waxuma kenn man laa wax maa njëkk a yedd sama bopp ci woy wi ku bàyyiwul sa bopp koy doo bàyyi kenn man laa wax man ma ne soo dugg soo yow yaa woy kaa wax lu baax na fexe yow itam bay wax lu baax kooku koy bàyyiwul kenn. le message est fort ndax ñun bu ñuy way ak lu nu mënta def thème bu ñuy def di ci génn suñu bopp ça n'a rien à voir ñun ñëpp benn lanu booy njëkkee dara da nga koy booy commencé dara di ko yedde da nga koy njëkkee di tax nit ñi di ko gëm ne peut-être sama comportement ci ñeneen ñi xam ne ne yàgg naa wax lu baax day tombé mais attends ma sama bopp dama ci bëgg wax lu baax kaay wax lu baax léegi amul njariñ fu ñu ko teg amul ci benn message boo xam ne message bi pour ñëpp la féetewul na ko ci état féetewul na ko ci fenn ah. message boo xam ne day message boo xam ne pour message su Sénégal la ñun ñoo ko bokk ñoo ko moom mën nga ko féetale fu ne nag fu waay séddu rek jëlal ca way wa fu waay séddu nañ jël d'accord ku ci bëgg na jël d'accord a waaw lu ma séddale rek d'accord waaw artiste yi ca lan ñëpp ca lan bokk mhm. ñëpp ca lan bokk mhm. man mi toog ca la bokk mhm. hmm. kenn waxatul dëgg ndax dëgg amatul ah. waaw mooy loolu mooy xam nga bu fekkee da nga bëgg doon tu veux être une proposition si ba relatif doo wax dëgg bu fekkee da nga bëgg ànd ak sa xarit bii di ko sibooru bëgg teraanga ci moom doo ko wax dëgg doo ko wax de ndax nawlante jaa bëgg jeex koo àndal naw la ngeen nawlante da nga koy wax dëgg waa ñu bari nag seen yaay yi dañoo liggéey sa te bu nu màggee danoo bañ sa feeñal ko da ku dëggal sa bopp ci nawle bañ a indi dara kee am wërsëgam néew doole yàqul ànd kee am million mën na ànd ku ànd ak ñaari junni ku am ñaari junni yàqul ànd loolu nawlante rek moo am solo mm-hmm. parce waa ndax wax dëgg jamono ji yombate na. nit ñi nga ni mais day fekk nit bu dëggu rek nit bu dëggul mënoo fexe ba mu dëggu su yombul tam boo demee ca ñooy wax ñu waxtaan ak yow kay waxtaan bu ñuy xam nga ne waxul dëgg. jàppoo ni léegi nit ñi moom li leen neex rek euh, euh, ci loolu ngay waxee. waa xam nga tam loolu du nit ki lu mu neex rek la war a waxee les comportements dafay jouer mooy kay wax lu baax rek. Mhm. doo ci génn ba tey dama tënk rek dama olofal olof mhm. kay wax lu baax. kaay wax lu baax lay loolu lépp nga ci. Mm-hmm. kaay wax lu baax. seet bay sëy sax ñu ko mariage ñu muur ko buñ koy muur dañ koy wax ne boo demee na nga wax lu baax <laughs> seet bi ñu ko bu war a sëy si ñu war ko muur kilifa yi du ko yóbbu buñ demee mën nañ ko yebee woy wi boo demee kaay wax lu baax <laughs> dama wax lu baax. Uh, wax dëgg moo gën jëf dëgg. waaw wax dëgg jëf ko wax nii. jëfoo ko moom zéro yam wax jëf ko jëf la ñu xam jëf. Mm-hmm. waaw wax jëf moo ko gën. Mm-hmm. jëf jëf jëfal waaw wax dëgg jëf dëgg ko gën jëfal bul wax. te loolu dafa bari ci réew mi nit ñi dañuy ñëw di wax nii rek. waaw waaw laso waaw waaw laso waaw. peinture laso waaw bu boobaa nag di nga xam ne kii ñëw rek lu nit mën a ñëwee rek mën nga xam ne ki waxul dëgg te li gën a bon ci àdduna yàlla bañ ko mooy nit bu dul wax dëgg. Mm-hmm. yàlla loolu moom du ko baal wax dëgg warul wax dëgg day doy di nit sax ay fen ak ay ñàkk wax dëgg day doy di nit wax dëgg waaye jëf dëgg ko kon wax dëgg jëf dëgg ko woon. mama euh, réew mi fi mu toll euh, boo farul fi ma far rek wax ju ñaaw dal sa kaw. Hmm. maanaam sa analyse personnelle si loolu au delà de kay wax ñu baax sa analise personnelle ci ci réew mi fi mu toll nii. Ah. bi nga xam ne fii ki nga xam ne fi nga far rek nga xam keneen bu faree feneen ñu dal sa kaw wax la wax ju ñaaw tey sa analyse si loolu. ah non man de vraiment personne kooku ci gis def libre nag ku libre nga nag ku ne libre na nag ay nitu neen la nag nday ji la jur rek ak bàyyi bi la jur te jur la ñu jur la ci farata ak sunna Muhammad boo màggee am na moment boo xam ne lay bàyyi nga libre nag ku ne libre nga nag ku libre nga def li la saf ku ne libre nga def li la saf nag ku am nga sa liberté ñun euh, euh, démocratie nous sommes des citoyens libre nga def li la saf ku ne libre nga ànd ku la neex ku ne libre na kii lay àndal ku ne libre na tubaab kala def sa sa opinion. ku ne libre na ku ne libre na mais gars yi dañuy def benn distinction comme comme bu ñu xoolee célébrité yi ku ci mel ni Wally Seck ku ci mel ni Dip Doundou gis ku ci mel ni ñeneen ak ñeneen. Euh, bi bi bi Sénégal tollee ci ci période yi ñu ci ñu jàll dañu doon gis ñu leen doon incité pour ñu génn wax loolu noonu ndax d'accord nga ci. ah non non non non non non lu tax lu ko fi mag ñi leen fi mag a ngi fi du ñoom la doon du ñoom la doon doon xale yi mag ñaa ngi fi wax du c'est pas forcé déedéet déedéet ay xale la ñoom kilifa yi fi gën a mag ñi ngi fi buñ leen condamné ci loolu ay bu ñu waxaloog yooyu noo d'accord maman xam naa fi may jeexalee mooy ci euh, lu mujj li ñu mujjee wax dëgg mu mel ni moom maman léegi dëgg dañ koy jënd da ngay gis pour wax dëgg sax ñu woo la ni la kaay bul wax. waaw tëj sa gémmañ. Mhm. waaw xëy na ñoom xëy na ñoom seen judd dañ ko dund moo tax fi day judd lu am solo la ku ku ba sa ndey jur la ak ni mu la juree ngay borom askan di borom judd ñu lay jënd ah loolu day man de man de man de kenn du ma jënd man Soda. Mhm. man lu ma def man la neex man de kenn du kenn du ma jënd déedéet man kenn jund ma. li may def dama koy santir dama koy bëgg nit war na fexe ba kenn du ko jënd jënd non non su ma tax bala di nga bëgg a jeex. Mhm. waaye bu fekkee rek dafa ñëw imposer boppam jël juddoom ak askanam ak li ko ndeyam juree na leen waru koo jënd. Mhm. déedéet déedéet nit nit kenn du jënd. Mhm. ci nga xam ne réew mi réew mi yàqu na jënd. pour nit ñu yónnee pour ñu waxale lu baax yooyu yooyu yooyu dégg rek lañu ci doy. Mhm. man de sama bopp laa mën a garanti de man de melu ma noonu. Mhm. dara ébranlé wu ma. Mhm. waaw waaw. réew mi réew mi yàqu na bu jamono musaana toll fii. lan moo ci rôlu mag ñu baax ñi su ma nee mag ñu baax ñi mooy les grands griots nga xam ne daan nañ génn di dem di wax di suude di ñaw lan moo ci seen rôle jamono ji. waaw moom seen rôle moom géwél moom mooy li rek moom géwél dafa war a réconcilier géwal dafa war a réconcilier géwal yi war nañ wax. magu géwél war na noo wax man wax naa génn naa wax. Mhm. clip bi wax la ak yeneen waaye ñu ngi ci nag ci leen dëkk de ñoom géwél yi parce que doon toll boo xam ne nag ah actuellement Sénégal naqari naa wax de te ñoom it dañoo jaboot yor seen i mbokk man waxante dëgg nag xam nga toog ci ay presse ñu lay saagaak di la yónnee n'importe quoi di déranger ngay kilifa il faut se limiter à temps. Mhm. et lépp ci àdduna mooy le respect doit être réciproque pour kilifa laa fi gis nga ni ma fi def ma toog ñu lay saagaag di la wax lu ñaaw ci boromi mbokk ah nga ni reculé wul tuuti nag ba dans le calme ñu bàyyi ba yëf yi ñëw xam naa géwéli ndax parfois xëy na ñu ragal te ñoo yey ragal parfois léeg-léeg sax yaa ngi may laaj ñun géwéli dañuy wayaa nekk di dem ay yëf ñu wax ñu déborde da ngay gëstu rek gis ko la pes koo xam fa la réew mi toll <laughs> kon kersa amatul léegi <laughs> ah, lu leer rek positif waaw yaa ngi wër waraal te taasoo dabar ko ñun faralu lu kenn am na nag ay xarit ndax dañuy wayaani te réew mi foofu la toll a ah, ma ngay ree ma ngay ree te jaxasoo mën naa am da nga jëkki gis ko la pes mama noonu da ci jaare dama la expliqué rek waa tout doux rek waaw ñun yoon ne ci kenn ay géwal lan ne ci réew mi ànd ak ñëpp jàmm seq ak ñoom jàmm <laughs> bugg ay pes dama lay expliqué ne ay taal oto ah kay te damay génn di wayaani mama poñe ah waa baax na yow tam dama lay expliqué rek waaw lu leen laa leen wax samay doom ngeen te yi seen i journal ngeen di jaay oh. dimbali leen ñu rek actuellement ku xool barki démb li fi xewoon ah <laughs> loolu Pape Cheikh Pape na jërë woowatuma kenn dama daan dama dama daan dama daan sinab waaye sinatu ma kenn ku ma pes laay bañ foofu la toll tànk da ñun dañuy génn di wayaat ah te yéen dama ni ngeen ma bëgg a ah, xarit su ñëpp leen rek waaw ah, ay pes mbéeg rek laay laay ragal actuellement eh, te noonu da ci noon noon noonu da ci jaar mhm. noonu bu yable nga gis ku ne la tel pes mama loo wax moo tax ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan réew mu jàmm rek yal na yàlla seral man daal yàlla yàlla seral yàlla na seddu guy moo fis ni glace amin am na solo ah moom laa dalaloon fii di mama mu soo mama Soda Bousso yow kenn du la laal ndax yow wax dëgg yàlla li woykat bi naan génération bu nekk ak sa dimension sa mission mm. mama tey bu demee ci ci keppaaru mag ñi maase ak ñoom tey boo ñëwee ci ndaw ñi maase ak ñoom boo xoolee clip bii ku la xool yàgg ñu ko fecc da nga naan waa lii est-ce que du même génération. Mm. donc da nga maaseeg da da nga da nga maaseeg ñoom wàccee sa bopp moo tax yow moom ñëpp la bëgg. vraiment yow kenn du la pees. kenn du taal sa oto <laughs> yow jàmm ak salaam rek nga yem ah. maman am na mbégte ci dalal la. sa mot de la fin ak message booy lancé aussi. message bi nag mooy dinañ ñëw incha allah euh, xam nga nag maa ngi def première sortie incha allah ci kay ma maa gis ko ko moo tax ni mu garaawee. ni mu intéressant wee mm. sant yàlla rek bi mu rek. lan def benn contrat boo xam ne laaw la cat spécial tabaski à Genève. xam nga loolu nit ñi xam ne communicateurs yi ak ñu baax ñi ñi am na ñoo xam ne seen nopp yi du dégg dara lu bon. Mhm. ci ngeen bokk yéen ñii boo leen ñëw di ma interview da ngeen tàllal seen tànk di def nii am am am am kii ba présence ba waaw ah, fayda yooyu fula yooyu am personnalité am jom muy yàlla nu ci yàlla yóbbu jàmm. Mhm. muy première sortem à Genève xale yëpp diggante nag France Italie Allemagne xale yëpp nar a wàcc si rek ci kàttanu yàlla ñu def ñu def ñu def sabar yeeg tamaya. toog xawaare rek def xalam. daal di witti di ku wax lu baax. wax lu baax rek. waaw wax lu baax rek. kay wax lu baax. dañuy wax lu baax ku wax lu baax lu baax fekk la ca ku wax leneen am leneen lu baax rek lu baax rek fi lu baax la teranga bu nu tukkee dem fu nu mënta dem ci àddina dañoo naw sénégalais dañoo naw ñun. liñ fi am billaay pétrole bi sa gën koo riis nañuy wax lu baax rek waaw kaay wax lu baax ji nag kooku lii lii ëpp na